tas tas eh eh est-ce que bëgg ngeen ñu baal leen wala ñu defal Euh, Ousmane Sonko euh, moo dikkoon tey fii nga xamante ne moom mooy si diwaanu euh, Njaareem gannaaw ba mu jógee fi nga xamante ne moom mooy Mbàkke dafa jaax fi nga xamante ne mooy Bambey tey jii nag mu ñëw teew fi nga xamante ne moom mooy si diwaanu Njaareem ba ñëwee nag si diwaanu Njaareem dikk na def na li nga xamante ne moom mooy route nationale bi daal di teerese fi nga xamante ne moom mooy buntu mairie bi buntu mairie bi nag ba mu fa teere taxaw na kii di Xaadim Gueye jël na kàddu kii di Ousmane Ousmane euh, Ousmane Sonko tamit jël na kàddu kii nga xamante ne euh, moom mooy Marème Diaw jël na kàddu nga xamante ne euh, ñoom ñaar ñooy candidat yi nga xamante ne ñoom ñoo war a teewal fii yeewu askan bi kon nag mën na na jàpp ne ne teg nañ fa ay kàddu yoo xamante ne surtout nag ki nga xamante ne moom mooy le maire Malick Fall nee nañ koo xamante ne kuy war la euh, ndaxte euh, dafa euh, campagne woon ne du ànd ak mukk ñi nga xamante ne maanaam moom mooy nguur gi dootu ànd teg ñoom ndaxte àndoon na ak ñoom waaye nag mujj gi dafa wëlbatikuwaat ànd ak ki nga xamante ne mooy nguur gi kon nag ñu jàpp ne ne kii nag li nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko wax na ne ki nga xamante ne moom mooy maire Diourbel di Malick Fall dafa war loolu daal la jàpp wax. ne na nag liy dindi loolu ak liy faj loolu moom mooy jeunesse bi daal di euh, woote joxe li nga xamante ne moom mooy seeni ay carte daal di koy wooteel ki nga xamante ne mooy yeewu askan bi ak wàllu askan bi